jërëjëf mbokk yi bàyyi xel seen site bi di Thiès Info ñu ngi fi nga xamante ni mooy Mori Tassette bokk ci diwaanu Thiès fii nag ab accident bu métti métti moo fi am ñetti xale yu jigéen yoo xamante ni ñoo jàngee ci lycée bu Tassette ñoo daal di ñàkk seen bakkan ab tracteur moo ñëw daal di dal seen kaw ba ñu ñàkk seen bakkan ci saa si am ci itam ñeneen ñaar yoo xamante ni euh, dañoo daal di am ay gaañu gaañu yu métti ci loolee la la sappoor ñëw daal di leen rawale mu nekk nag mbiru métti métti ñenn nit ñoo xamante ni euh, fekkee nañu mbir mi ret ñu daal di waxtaan ñoom ñoom itam ñu wax ñu mbir mi naka la demee seen site Thiès Info di jàll baax baax baax ñaan yàlla jéggal leen ñu laaj ñoom itam ña nga xamante ni fekkoon nañ mbir mi naka la mbir mi demee léegi-léegi lay doon. bi naka la. Cheikh Sène la. Euh, mu mel ni ku ci tase ab accident bu fi am ba ñetti xale yu jàngee ci école bi daal di génn àdduna est loolu am na. waaw am na boobu mu ñu fekk ñu ngi toog ci benn garab bu ne fee léegi benn tracteur mu ngi jógee na le di ñëw beneen bi ñëw bi si ginnaaw ne mooy mooy doublé xamuñu ay frein dafa baaxul xamuñ nu mu demee mais bi mu ñëwee daal ci la saaraan rey na ñaar rey na ñett blessé na yeneen deux waaw noonu daal la action bi demee ñun nag fële lañ toog gis ret lañ ci am waaw moom daal ni mu leen reyee ñaaw na trop rey bi daal moom ñaaw na moom wax dëgg yàlla boo ko ñaaw yem. Euh, ci ban waxtu la mbir waaw loolu moo ay côté 14 heures la doon. waaw. Euh, mel ni itam xale yi ay élèves lañu di jàngee. élèves lañ di jàngee ci lycée bi te fii ci taset euh, garab yi dañoo jegee tali bi trop quoi loolu moo gën a ba jokk tax. bu buñ ci mënee góorgóorlu daal ñi di ko def. Euh, bi bi mbirum amee itam naka la askan wi maanaam taxawoo. ah askan wi moo xam nga ay pël ak yooyu rek ñoo fi nekk daanu beeg lépp kenn xamul noo koy lijjantee sa pour tam bi nga ko woowee avant muy ñëw xaw na yàgg te su gën a kii chauffage bi tamit desoon na daal voilà. Euh, kon tey jii kon daal mën na jàpp ne kon ñetti xale yooyu noonu dañoo dee sur le coup. dañoo dee sur le coup parce que pneu oto xajut ci kenn. ah kon dafa dafa jaar seen kaw. dafa jaar seen kaw pneu oto xajut ci kenn. ci ñett ñett la jaar wala ñaar ñi moom dafa jaar seen kaw keneen ki nag moom fii lañ ko fekk rek xamul da ko dóor ci garab bi xamul nu mu ko def. Mm-hmm. voilà. Euh, mu mel ni itam euh, am na ñu ne ñaari oto yi dañ doon daal di njëkkante ñaari tracteurs yi. non bi si kanam dàqawut ki si ginnaaw ginnaaw moo dàq mais ki si kanam dàqawut ki si kanam luñ ko wax tooñ ko moom moom dàqawul moom voilà ki si kanam da doon daw dawam kee itam na mu jógee xamuñ ay frein moo baaxul xamul lu demee ci garab gee la njëkk a dal dooga wëlbati ku rey ah, dafa njëkk a dal ci garab yi ni mu ko génnee même ki mu ànd sax fel na ko fel bu métti noonu lañ gis ñun fee lañ toogoon mhm. ma dégg dell bi ma ne ah lii de am na lu xew ma jóg kabar beneen euh, beneen rakk bi ma dégg yuuxu yi foofu laa dowee be ma ñëwee ma fekk xale bu jigéen bi mu ngi tëdd fekk xale yi dow ñu ñëw ñoome wu ñu ku dee ñu daldi di dow dupp man ma daldi di ñëw ma seet ma ma ma ma xam ne kii ku dee la ma jël ser bi ma muuroo woon ba may julli ma ma ma sanga ko ñëw ci kii fekk kii deexagul ma dem ci keneen kii fekk kooku tam deexagul ba tuuti nag kii ki dee ñu yuuxu ma ne leen woo leen sapar pompier woo leen pompier woo leen pompier ba tuuti kooku tam dee ñu nekk ñett kenn kii defa damm ñaari tànk yi ñu nekk ñeent ak keneen ki tam dafa gaañu kaw ma daa damm na kaw ma dammul waaye keneen ki moom metti na kay metti na hmm. waaw ñoom ñu ñaata at lañu am ñoom ma ñaata at ndax dëkkuma ak ñoom hmm. dama dem dama ñëw dama dégg rek ma ñëw njëkkuma ak ñoom kaw ma ñu xataal ah, waaw fii la am mhm. fii kaw ma ban hôpital de mhm. kaw ma ban hôpital mhm. waaw waaye xale yi daal mu ne itam ñoom ay dañoo jàngi woon ba wàcc di ñibbi deux heures deux heures pile waaw ah, maa ngi lay delloo siyaar bu baax a baax Xaadim Njaay la bi waaw kër gi jàkkaarloog blancheri bi. Euh, mbir mi am ay euh, xibaar mbir mi de um, affaire yu yéeme la fi la ñu fekk mi ñu fekkoon ñu toog ci kii bële garab gee suñu buntu kër waaw ñu liggéey ba wàcc toog foofu noonu rek après si la affaire yi am xanaa ak dogal bi yàlla ginnaaw dogal bi yàlla na suñu borom moom lépp lu am rek moo ko dogal waaw te comme li ñu wax ci alxuraan almawtu laa ko mu taxteekum baxdatan dee du ñëw si lu dul mbetteel biñ toogee foofu rek après si la ñaari bil yi jóge nii romb bi ñuy romb tamit ñu ngi daw xel bu bari benn bi jiitu benn bi jiitu moom daw lu bari sax lu tuuti la doon daw mais bi topp ci ginnaaw bi nga xam ne moo def moom da ko jéem a doublé moom moo doon jëkkante keneen ki njëkkantewul kooku wax dëgg yàlla moom da doon daw ndànk affaire yi kee moo ko def bi mu bàyyee ba sëkkamtal ko moom si la ko moytoo si la ñëw taxaw fii après tesante élèves yi ñu ngi jógee fay ci sem bi ci dox di ñëw léegi bi mu ko sëkkamtalee nag moom kooku mu koy moytu ba xaw naa laal poto bi sax ndax da ko daw quoi jàdd après taxaw nii kooku dal na ci léegi mu dóor mu dal ci kawam mu dal ci beneen bil bi léegi bi mu dalee ci kawam nag si la góosewaat dem ne bi mu demee ne rek ñëwaat dellusiwaat bi mu dellusiwaatee nag xam naa ci la fekk élèves yi di ñëw fii surtout ñun ndax bi ñu toogee fi bi ni nii wàcc ñi ngi jàkkaarloo ñoom ñuy dox di ñëw ak aussi tali bi tamit xam nga lii nii sump yii nii jege talib bi tamit xam nga lii yëpp nii virage bi fii du yoon quoi. Euh, léegi tey jii euh, maanaam bi bi amee moom leen fiir dafa daal di daw wala dafa taxaw. waaw ah, moom bi mu leen fiiree moom dafa mujj mënatul contrôler bil bi bi mu moytoonee ñëwaat xam naa si la jël booy après dafa continuer waat moom dem ba ci kër yële ba ca wetu Semba. Mm-hmm. bil bi mënu ko téye bon bi mu ngi def nii quoi di baajew après si la tourné waat bi mu tourné waatee ñëw fekk na fekk boobu ñun ñëw nañ bi ñëwee si li yam ci booy sur le coup benn booy bi fee fekk na mu gaañu am keneen ko tëdd fii tar suñu am keneen ko tëdd nee quoi. fekk booy bi woon fii moom booba gaañoogul ngi moom dafa dem tournée ji ñëwaat bi mu ñëwee fii man maa ne ko taxawal ba mu ni ma maa ngi mu taxaw mu jàll continuer taxawul léegi fekk benn oto buy ñëw ma ne ko gaañ benn di dem moo fiir moo def affaire bi topp ko mu toppi ko si la dem ko seeg ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci booy quoi di leen sauver moom mi ngi nekkoon si toolu espagnol yi fële ci ginnaaw foofu la dëkk quoi topp nañ ko ba foofu mhm. waaw ñett xale ñoo génn àdduna ak ñaari blessé waaw surtout. bi mbir mi amee itam sappo ci wàllum sauvetage yooyu noonu nañoo ñëw wanoon leen parce que diire na luy mat luy bëgg ma deux heures de temps fii kenn ñëwul fii wax dëgg yàlla. Hmm. fii bu fi amee tamit loolu tamit mooy loolu. yàgg nañ fi nit ñi woote nañ leen jot woote nañ nooto man mi woote naa nooto parce que benn gaañ bu ma doon woo ku tudd Baba Ndongo après fekk nooto la nekkoon brigade nooto mu ni nekkatu fa mu jox ma beneen numéro bi ma woowee waa ji dana ma euh, wool sappoor moom loo ma wax fekk fekk gars yi woo woo nañ waa sappoor léegi ma expliqué ko ne ko bil bi mi ngi ñëw mu ne ma maa ngi taxaw ci kaw tali bi ñu di ko xaar pour bu ñëwee mais rombagu fi noonu la demee. après waaw métti na non métti sax xajul si nit wax duma la bil. dafa jaar da leen a bëgg. Mhm. waaw da leen a bëgg kenn ki fii nii taatu garab gi la tëdd kenn ki ne keneen ki ne gars ñoo ko déplacé quoi mais métti na daal wax dëgg yàlla affaire moom fu lu la waay lu la waay mën a wax métti na ba fu métti yem ak dogalub suñu borom waaye metti na torop torop torop wax dëgg yàlla ku ci yéemul rek jàpp ngeen doon kon moom moo ko tey wala itam ñàkk mën dawalam la ah lu nañ ci daal mën a amuti frein wala fu am daal xam naa ne moom wax dëgg yàlla ab moom dan moom li mu doon daw itam jaaruwul bi mu ñu rombee parce que ñun ñëpp bi mu ñu rombee mi nga daw loo xam ne lu ëpp la waaw ban koy wax ñun ñi bañ ci commentaire mais parce que daw ba mënatuloo contrôler bil bi waa bu jéyee ji am tamit loolu vraiment moom daal dogal bu yàlla mais tamit daal nafsu nafsu ànd na si daal. xale yi nee nañu pël la taset pël lañ dëkk waaw. taset pël lañ dëkk suñu ginnaaw nii. ñoom ñëpp waa kër googu yëpp benn famille la ah, benn dëkk la benn famille la ñëpp ay mbokk lañ waaw. Euh, Aïcha Bokum. bu mel ni ci foo jàngee. ci CM ci bi. Ah, ah. mu mel ni seen ñetti élèves dañuy ne daal di mbëkk fii nii. waaw tey dañu dañoo benn tracteur moo leen mbëkk tey. ne dañoo nekkoon ci kër gi dégg benn bi dégg ay yuupu ren ndekete ñett nit ñoo accidenté fii nii tracteur bi moo leen bëkk hmm. ñaañ ñoo ngi dund tey ñoo ngi hôpital. Hmm. waaye dañoo ah, xam naa ne moom kenn ki Collé la tudd keneen ki Aysata ñeneen xamuñ ci kenn. ban classe lañ nekkoon. cinquième. cinquième waaw. bi mu amee fii naka la nit ñi doon doxalee ak ñoom. nit yi dañ doon yuuxu rek ñii di daanu ñeneen seen parents ñëw di jooy. bi sa sapeur jëlee fa far ngeen yóbbu. ah hôpital. hôpital waaw. te ki leen bëgg taxaw na wala taxawul. daa daw dafa daw waaw mais après na fi. ñëwaatul de gisuma ko. ñëwaatul waaw. te ñeneen ñi gaañu itam seen gaañu gaañu nu mu mel. ah am na koo xamante ne ci bopp bi la gaañu. waaw mm-hmm. ak keneen ki. boobu xaw ma ci daa dama waaw.